xam li ko war a lenn la rek mobilisation bi nii mooy lan dañuy sesatal xam nga mobiliser suñuy waa koñ sensibiliser xam ne instant yi toll nii dañoo dugg si benn activité boo xam muy activité daal bon ñu ngi soog a débuté xam nga franchement parlant kontaan naa si booy trop trop trop li ma bëggoon lépp si ñoo na ne liggéey bi jaar na yoon xam nga après instant toon yi li des daal ñu xool loo xamante ni mën nañ koo continuer xool suñuy tege suñuy programme ak suñu activité ak lépp te franchement parlant kontaan naa si booy trop trop trop trop trop te aussi tamit di leen gën a ñaax li ñuy def nii ñun dañ leen dañ leen wutal yoon rek dañ leen wutal yoon rek xam naa ni fii ak ay quelques années lépp dañ koy jël seen loxo bàyyi ko seen loxo aussi tamit ñuy wax ni li ñuy def nii dañ koy def suñu suñu ASC la bëgg suñu koñ waaw suñu koñ kese la boo gisee booy ñu génne yëpp kër Cheikh Awa Balla la liggéey bi dañ koy def instant toll jub lañ ci affaire dañ koy def buñ ko defee dimanche bi tëb beneen dimanche taay defaat duggaat si koñ yi cité sondeel parce que lépp si kër Cheikh Awa Balla la hmm. amul fu ñuy yem ne fii la ñu yemal ji dañoo bëgg lépp ñu def ko si kër asi kër Cheikh affaire bi lenn la rek club supporter yi ñoo organisé lii ku ci bëgg a bokk am ay carte membre yoo xam ne dañ koy jaay hmm. waaw ku ci bëgg bokk xam nga di nga ñëw jënd carte membre aussi tamit bokk ci affaire yi bokk ci activité yi et benn groupe boo xamante ni groupe supporter la mais nag du question groupe boo ku si nekk lu la waaye neex wala lu la non non non parce que dañ ko ubbi groupe boo xamante lépp lu mën a organiser si wàllum supporter yi si wàllum mobilisation ñu waxtaan ko ci aussi tamit am na grand yoo xamante ni ñu ngi si koñ comme ay grand xaari mbay hmm. gis nga ko ni mu ñëwee sànq xam démb la jóge tey la jóge Dakar ñëw yëpp ñëw jàpp ci franchement parlant pontaan nañ baax si moo xam moom gis nañ ni ñuy jàppalee na ñu ngi tàllal lépp loxo lii dañoo def demande dem mairie xamul def demande bii nu jox leen ñu jox ñu matériel yi aussi tamit di di remercier monsieur le maire bu baax parce que ginnaaw yàlla lii moom la moo jox matériel bi gratuitement waaw kàddu yi may sànni leen la rek kontaan naa mooy li ma wax kontaan naa man xaw xalaatu moon si affaire bi dina dem ba yegg fii waaw loolu daal la amoon lu may gën a ñaax booy ñu gën a góorgóorlu yàlla baax